ñaareel pàcc wi daañu dikkaat gën ko faram-fàcceel mbokku téléspectateurs yi ñuy déglu euh, ci kanam tuuti ma fekk si la ci euh, jotaay wi ñu wéyal waxtaan wi soxna naata ta tout à l'heure à tout allah en attendant euh, Cheikh ñu taxaw ci actu commenté bi tey wàllum tàggat yaram la ñuy waxtaane record jarul ngay sori mën ngaa indi record voilà juste après voilà merci beaucoup Cheikh ba ci kanam incha allah incha allah alors El Hadj Malick ñu gis xibaar bi muy suñuy match ci éliminatoire coupe du monde yi Sadio dafa nar a forfait ci match Mauritanie ak RD Congo match RD Congo bi gannaaw suba la Mauritanie dimanche la n'est-ce pas le 9 incha allah ndax euh, peut-être ay gaañu gaañu. waaw dafa dafa forfait mm. définitivement pour ces deux matchs là. Mm. léegi rek Cheikh mi ngay wax ci journal bi genou droit bi ci la am gaañu gaañu. Mm. Euh, genou boobu euh, soxna naata mooy genou bi nga xam ne. Euh, ci la gaañu woon euh, bi ñu doon dem coupe du monde te bokkul woon ci coupe du monde boobu. Mm, suñu suñu sëngeem ba woon. Euh, waaw suñu sëngeem ba woon. Mm-hmm. donc moo tax bi nga xame ni staff médical bi xool nañu ko. xam nañ ni blessure bi mënu ci football donc mi ngi gaañu ci finale coupe du roi bi nga xam ni moom moo mm-hmm. amoon ci mm-hmm. diggante clubam ak clubu Kalidou Koulibaly mais Sadio en équipe nationale quand bu ci bokkul mm. dina am lu ci manqué parce que il y a une certaine Sadio dépendance et depuis que mu nekk en équipe nationale c'est le joueur le plus performant de l'équipe nationale mi ngi dugg équipe nationale le 25 mai 2012 Sénégal Maroc boobu moo doon son premier match ci la def sa première passe décisive ñu doon match euh, Maroc 1-0 mu passe Moussa Konaté mu dugal premier bi tam mi ngi ko dugal en ci deuxième euh, sélection mu nekkoon le euh, le 2 juin 2012 mais depuis lors il enchaîne Sadio c'est pratiquement 106 sélections 43 buts marqués mmh. meilleur buteur meilleur passeur décisif de l'équipe nationale mhm. donc il y a quand même les statistiques sont là Sadio euh, bu fi nekkee ak bu fi nekkul équipe bi yemul mhm. parce que que Sadio soit performant ou non en club saa yu ñëwee équipe nationale dafay marqué empreinte depuis quelque temps on a quand même vu un Sadio moins percutant moins performant Euh, euh, moins décisif mais quand même il reste un joueur clé euh, de l'équipe nationale donc tey lu ñu mun a wax rek mooy il faut que équipe bi commence di tàmm jouer sans Sadio Mané hmm. parce que plus ñuy dem plus âge bi di ñëw plus Sadio di gën a moyen performant donc Sadio dépendance boobu il faut que euh, équipe bi commencé ci départiru di euh, promouvoir yeneen jeune parce que tey que Sadio soit là ou pas quand même on a une équipe assez assez performante. Uh-huh. on a des yu nga xamante ni ay joueurs de qualité lañu. tout dépendra maintenant de l de l'animation offensive bi nga xam ne moom la Aliou Cissé di mettre en place parce que son système peut varier en fonction de la présence ou non de Sadio donc mais en tout état de cause l'absence de Sadio oui dina xaw a peser ci équipe bi mais li ci des mooy yeneen joueurs yi wane seen bopp xam ni bu fi Sadio nekkul ñoom ñoo fi nekk te ñoom ñoo war a def performance yi mm. c'est-à-dire ñaari match yi ñu jéem ci mm-hmm. am ay résultats yu baax maanaam gagné ñaari match yëpp pour que coupe du monde bi ñu mën ci dem euh, prochainement. Euh, euh, sëñ Cheikh naka lañu mën a def xëy na ba absence su Sadio Mané bi ñu bañ bañ koo sentir torop ci ñaari match yi ñu jëm. Hmm, waaw comme ni Malick doon wax léegi rek ça nous ramène à un débat boo xamee ni amoon na fi il y a deux ans. <laughs> mooy bi ñu demee waree dem coupe du monde. mu forfait ñu naan comment est que l'équipe nationale du Sénégal va jouer sans Sadio Mané. Hmm. dem nañ coupe du monde. quand même on a beaucoup senti son absence quand même ci euh, compétition boobu donte Sénégal euh, góorgóorlu woon na ba euh, huitième de finale. Angleterre éliminé ko. mais quand même on avait senti que absence su Sadio Mané pesé na ci attaque bu Sénégal. mais depuis boobu ñu yaakaaroon ne ko aussi que dinañu gën a maanaam. wut ay solution de de repli en cas d'absence de Sadio Mané ou bien wàññi dépendance boobu nga xamee ni euh, moom la ñuy am ci moom équipe nationale c'est vrai qu'il y a Elimane entre temps euh, bu bu bu ñëw mais c'est pas euh, le même jour que Sadio Mané c'est pas le même poste bon mën na sax jouer poste boobu mais capacité de percussion bi Sadio Mané am moom moom Elimane euh, amu ko te ba léegi c'est pas bien implanté en mm -hmm. équipe nationale on pensait à son lieutenant bi mu nekkee équipe nationale ci euh, euh, décennie bu mujj bi yëpp muy Ismaïla Sarr Ismaïla aussi en un moment donné on lui a donné les clés du camion mais li ñu doon xaar ci moom bon defu ko. même si on, de temps en temps dina dina def ay performance mais. Euh, c'était pas constant. li c'est ça le mot c'est son problème constance bi nga xamee ni la ñu soxla ci moom te ñu doon ko gis ci Sadio Mané euh, gisuñu ko ci euh, Ismaïla Sarr bon léegi nag. parle souvent de nan lañ koy waxeeti le joueur qui doit l'héritier ñu koy wax l'héritier de Sadio Mané ñu bari benn joueur soo ko tuddee rek actuellement si seen xel yëpp ci benn joueur lay dem am na koo xamee ni moom la ñu yaakaaroon ni moom moo koy doon mais donc depuis deux ans. Mhm. dafa xaw a décliné. Euh, mhm. je pense que guerre Ukraine bi bokk na ci mhm. euh, li mu ko ah, Samba Diallo. on attend yaa moom lañ yaakaaroon ni que moom mooy ñëw. mais y a eu des problèmes ci carrière am ba tax na nekkul ci groupe de performance mais on pensait quand même à Amara. Euh, Amara Diouf génération foot moom la ñu yaakaaroon. que dina ñëw ci Coupe d'Afrique bi passé ñi ngi ko doon tudd pour sax mu ñëw di wutu Sadio Mané ci côté gauche bi on l'a appelé par la suite en équipe nationale mooy suñu match amicaux yu mujj yi ñu def France mm-hmm. euh, ñu bari li ñu doon li ñu doon euh, xaw a mm. tuuti mooy pourquoi Aliou jox ko temps de jeu bu bari te nag je pense que le problème il est là suñ kooku soo ko joxoon temps de jeu mu dugg def performance miin groupe bi wala nga yóbboon ko Coupe d'Afrique ba léegi mu miin parce que actuellement au Sénégal c'est lui qui se rapproche le plus de du style de de de de Sadio du jeu de Sadio en mm. matière de percussion en matière de talent en matière d'efficacité devant les buts mm. là bi mu ñëwee ci groupe bi boolewu ko ci mi ngi ci euh, équipe nationale euh, locale bi mm. là il est blessé peut-être que tey jii fédération bi dinañ xool est-ce qu'ils vont le remplacer ou pas. Mm-hmm. je pense que s'ils veulent le remplacer ñaari mm-hmm. profil moom moo fi am. Mm-hmm. Euh, c'est euh, Amara Diouf. te Amara Diouf euh, je pense que waroon nañ ko gën a jox temps de pour mu gën a miin équipe nationale. et su dul moom mu doon Pape Diallo. bi nekk Metz nga xam ne ni bërki démb la doon jouer pour yéeg bo malheureusement ñu rouge ko. contre Saint-Étienne contre Saint-Étienne mais. quand même euh, mi ngi woon ci état de forme bu am solo fan yi ñu ñu ñu génn. Mm-hmm. di pourquoi pas ñu andi équipe nationale parce que quoi qu'on dise ci côté yi. ci el yi équipe nationale Sénégal dafa am euh, manque hmm. te ak blessure Sadio Mané bi day gën a yokk et on va vers deux matchs hmm. extrêmement importants surtout suñu adversaire numéro bi nga xamee ni moom la ñuy hmm. euh, xëccool pour jël pay ci poule bi muy RDC moom la ñuy géewal te sooy géew moom tu a besoin d'avoir tous les atouts de ton côté comme disait El Hadj Diouf alors euh, Mor Talla en dehors de du jeu il a l'aspect psychologique ndax ñi nga xam ne a jàkkaarloo na Sadio dina am peut-être benn avantage bu ñuy xaw a jël. ce qui ne c'est vrai mais man damay quand même nuancer un peu. Euh, li Cheikh wax par rapport léegi ak saajo dépendance bi parce que quand même le contexte de du mondial euh, qatari ak euh, tey jii quand même c'est assez différent parce que Sadio Mané il a 32 ans et il joue à. Nasr lay joué Arabie Saoudite. et alors que bi muy blessé mu ngi woon dans un cadre européen hein, le Bayern Munich c'était pas rien te quand même gis nañ ni ces derniers temps Sadio Mané dafa am benn genre méforme. boo xam ni dafa nekk ci moom même si bu fekkee ah ba léegi nii quand même si dix les euh, dix dernières sorties de l'équipe nationale. Sadio Mané c'est quand même six buts. <laughs> c'est là-bas c'est là-bas qu'il faut lire. Euh, c'est c'est là <laughs> euh, c'est là où mais six buts et quatre passes décisives mais quand même. Ah, donc nañ ko nuancer parce que non <laughs> mën nañ ko nuancer parce que quand même Nasr la nekk kay gis nañ ni quand même amoon na benn méforme gisoon nañu sax temps yi muy péter un câble comme on dit dans le jargon pour euh, voilà il n'avait avait du mal à maitriser ses mm. mais quand même présence am en équipe nationale ça reste indéniable boo seetee rek ci statistiques yi ci dix dernières sorties yi par exemple Sadio Mané c'est six buts et quatre passes décisives donc pour man euh, voilà c'est quelqu'un qui est incontournable ci sélection bi même si quand même ça euh, Aliou fi mu ne nii dafa war a daf euh, dafa war a débrouiller sa moom nu muy débrouiller ça moom mooy am na quand des jours yoo xam ni am nañu benn profil boo xam ni dañ leen a war a jox seen chance. kii di euh, Jackson par exemple. mi ngi nekk Chelsea pour man ba mu ñëwee euh, équipe nationale ba léegi ak standard am fi muy joué joxaguñ ko gëdd. pour wan ko ni ko am nañu confiance ci moom parce que quand même Chelsea c'est pas. c'est pas le club d'à côté. Chelsea quand même c'est un club de Premier League la nekk. te quand même Jackson gis nañu. Euh, il a égalé même dépassé le record de Drogba dans sa première saison à Chelsea donc pour man kooku dañ ko war a jox gëdd un peu tuuti en équipe nationale parce que tout simplement day ñëw ñu koy teg ban pour man lool sax day jouer ci moralam. Mm-hmm. et yaa euh, à encourager c'est un gosse pour man dañ ko war jiital ko. Mm-hmm. Euh, jox ko confiance mu mérité ko mais bon bu ñu koy traité nii pour man sa joue sur son mental. ensuite euh, c'est vrai Aliou Cissé à chacune de ses sorties da doon wax naan Sadio Mané il est mooy seen mooy sunu star. Mm. mais euh, il va falloir se débrouiller sans, sans lui. et pour man les autres jours ont l'occasion de se montrer pour un peu taper un peu dans l'œil du sélectionneur mm. parce que RDC le 6 juin ce sera pas facile bu ñu demee Nouakchott aussi suñuy euh, euh, nu mu tuddati derby lay doon mm-hmm. parce que quand même Mauritaniens yi ñu ngi bàyyi xel te eh, football ak Sénégal seen c' une source de motivation pour ñoom. dinañ mën a jauger également seen niveau. Mm. waaw et puis voilà prestige la ñu am benn résultat positif euh, contre le Sénégal. Mm. alors euh, Cheikh Diop ndax jàpp nga ne Aliou Cissé il a quand même préparé euh, certains joueurs wala assez préparé ba nga xam ne situation yu mel nii. bu amee duñ ko sant duñu sentir absence su Sadio Mané. forcément wala bu ñu koy sentir aussi mu xaw a néew. forcément naata ndax itam c' est c' est c' est évident euh, c' évident euh, kii kii kii kii football na moom mooy gaañu sànq yaa ngi wax wàllu euh, psychologique bu ñu xoolee. Uh-huh. même bu dul ñi nga xam ne moom moo di ñi ñuy footballal ak équipe nationale bu Sénégal ñun ñi nga xam ne. ñun ñoo di supporters yi parce que il faut noter que Sadio Mané est la star moom mooy meilleur joueur par exemple de l' équipe nationale bu Sénégal tey par exemple. bu fekkee dañu war a mën a amal match sans pour autant que moom mu teewee li nga xam ne mënu mel am na loo xamante ni war na ko war a mën a def boo xoolee euh, dribble yi nga xam ne da koy def. tactique de jeu bi nga xam ne am na ko ak itam euh, vision bi nga xam ne euh, soxna naata également moom maa ne ñaancoo am na ko euh, donc day am lu mu am lu mu def ci suñu xel yi mais bon peut-être ñu ne indisponsable am na ay ndaw yu xamante ne également ñu ngi fii c'est le moment ñu wane seen bopp am également li nga xam ne moom moo di seen chance bu ko defee ñoom itam ñu gën a mën a dëggal seen bopp ci équipe nationale bu Sénégal. d'accord merci merci beaucoup. <laughs> da ngay am 30 ans 32 ans ñu ne màggat na nañ ko fi xam nga euh, tey y des joueurs qui performent jusqu'à 40 ans ou plus mm-hmm. euh, Sadio il a encore quand même. de de de de pour mm-hmm. continuer mm-hmm. di football ba si kanam. donc bu ñu waaw waaw non non non waxuma la de yow. dama ni Sénégal ñoo gaaw ci dafa màgget. Sadio màggetu fi Sadio amaguñu ku ko gën. moo gën a moo gën ci équipe nationale moo ëpp lu mu ci dugal. moo ëpp lu mu ci paas. mooy boot équipe bi di football mooy suñu star. ni ko Cristiano Ronaldo nekk ci dëkk. ak esprit de jeu bi mu am. la la la bokkaande waxoon rek. Euh, euh, la France a son Michel Platini l'Argentine son Diego Maradona. nous avons le Sénégal son Jules Bocandé ñun nag keneen ku am leneen nga jël ñun Sadio la ñu amagum. xeebuñu xeebuñu suñu suñu suñu ko jàppale. encouragé ko mu wér ak jàmm dellu si di continuer di ñu bëggal. c'est surtout ce qu'on lui euh, souhaite maanaam mu retrouver sa grande forme incha allah moom Sadio Mané pour si waat ci équipe nationale merci Mortala <laughs> merci El Hadj Malick ñu jàll ci leneen muy un jour au Sénégal